salaam sama gars dalee daal leen ak jàmm sama YouTube bi ci vidéo bii nag dama leen a bëgg woon nan ngeen di def ba supprimer par exemple ci WhatsApp benn message boo xam ne ah, dépassé na délai bi ma joxe benn misaal xam nga tey si tey soo envoyé benn message nit xam nga envoyé ko am na benn diir boo xam ne soo ko toogee rek message bi doo too ko mën a supprimer voilà léegi nag ci vidéo bi dama leen a bëgg woon nan ngeen di def ba nga xam ne même soo toogee diir bi nga xam ne WhatsApp moom la wax ne soo ko toogee mënatoo supprimer message dama leen a woon léegi nan ngay def ba nga xam ne message bi même su fekkee am na ay at sax léegi mën nga ko supprimer ak astuce bi ma leen di waaj a jox ni sans plus tarder ñu dem ci mbir mi. léegi nag dañuy ouvrir WhatsApp léegi suñu ubbee WhatsApp ñu dem ñu xool benn message bi nga xam ne. recevoir naa ko léegi voilà léegi ñu xool bii nii léegi maa ngi ko envoyé quatre maa ngi ko envoyé envoyé heures vingt voilà léegi xool leen maa bëgg supprimer day def supprimer pour mois waaw xam nga lii rek lay affiché léegi li ma bëgg nag mooy dama ko bëgg supprimer ba nga xam ne waa ji sax ci boom du jotati message léegi su boobaa damay activer mode avion bi léegi xaar mu wàcc man sama mode avion su ma yéeglee ci kaw léegi soo ko soo ko soo activé mode avion nga dem paramètre léegi soo demee paramètre léegi message bi comme maa ngi ko wax sànq 14h20 la laa ko 14h20 laa ko envoyé ah. voilà tey ci 14h20 léegi dañuy dem paramètre léegi ñu dem heure léegi xaar ma recherche ko directement date léegi mooy date et heure boobu léegi su ma ñëwee fuseau horaire bi. fii sa horaire automatique xam nga moom mooy réglage automatique lay doon voilà dama koy désactiver léegi su boobaa mu jox ma autorisation ma régler manuellement heure bi léegi fii man maa ngi waxoon quatorze heures euh, kii douze heures léegi douze heures vingt la woon léegi xaar ñu régler waat xaar ma régler waat ko voilà léegi su ma régler ba pare léegi damay def ok voilà. léegi suñ demee euh, quatorze heures léegi xam nga quatorze heures la woon léegi suñ ñëwaatee ci whatsapp ñu demaa ci message léegi voilà léegi xool su ma bësee pour supprimer voilà gis nga doy def supprimer pour tous léegi nag su ma defee supprimer pour tous léegi su ma ko supprimer moom ci boobam duuti gisate message bi day mel ni message bi supprimer naa ko su boobaay moom mëntu ko li fekkee preuve loon et tout ça dootu ko amati voilà merci fii la ñuy yemale vidéo fekkee vidéo bi neex na leen maa ngi ñaa ngeen partage ko abonné jaa ngeen jëf